nag ñii nekk ci kap ñii ñoo ñu tëj gaar ay cible état la ñu woon waaw ñooñu moom état li jëmti na seen i mbir mhm. mais am na yeneen ñu ci nekk ci biti ñoo xamante ni ci cible yi lañ bokk am na ci ñoo xam ne cible am na ci ñoo xam ne société civile lañ bokk am na ci ñoo xam ne këru diine yi këru diine yi lañ bokk état ñi ngi leen di fexe am na ci ñu nekk ci këru diine yi ñu ngi seen i tànk lii boo ko waxoon àdduna tukki. ci këru diine yi comme ñoom euh, euh, ñan lañu ci ciblé nga xam ne. seen njaboot yi laay bañ a tiital. mais mënoon déedéet bëgguma nga tudd tur ñu def ba ñu war leen ci këru diine yi. waaw que ñooñu dañu lëkkaloo ak yenn ëpp dañu am lëkkaloo si digg dëgg xam nga fi ñu toll nii état bi dafa bëgg ñëpp tourner le dos opposant fi am relation bu rafet ak opposant ñu taxé la ne yow foofu nga bokk. loolu kese la ñooñu defuñ gis nga ñi ñu ciblé nii yëpp defuñu dara yow xam nga ni buñ bu buñ defoon coup d'état wuñu hmm. ñu wàllum terroriste waaw violé wuñu waaw rey ñu nit jaayu ñu drogue jaayu drogue waaw kon loolu sama yi xam nga ni lii buñ ko fi defoon xam nga ni tey ji ni man buñ ma jàppoon may jaay drogue wala ma rey nit du xam nga ni du ma financé sama kër hmm. benn kalaame bu ndaw rek bu ma ko amoon police état laxasu ci laxasu boo xam ni hmm. munoo wax ba rëcc dëgg wér munoo wax ba rëcc donc dafa nekk franchement ay mbir yoo xamante ne lu lu lu lu lu doy war loo xamante ne lii la ñu nekk di dund sans compter tam ñi nekk bitim réew ñi nga xam ne ci ñi nekk bitim réew moom am na ci ñoo xam ne état mi ngi senti tànk pour refouler leen ñu delloo si Sénégal état mi ngi waxtaan ci suuf ak dëkk yee ñu nekk waa dëkk yee ñu nekk pour signer ak ñoom yenn convention yoo xamante ne day tax ñooñu ñu dégg nga maam ñu ñu mën leen a rëfal delloo si leen ci biir réew mi xam nañu ko rëf euh, euh, rëf euh, mën nañu gis nañu ñu ne fi état day signé yenn convention kii ak yenn yenn dëkk yeeg c'est pour loolu ci a sonal état ñooñu nañu xam ne réew seen i mi ngi seen i tànk pour rëfale leen si ci delloo si ci réew mi te mën nañ leen tëj kaso am na ñoo xam ne moom déjà mandat dara mi ngi leen di xaar bu ñu naan cëpp aéroport ñu leen di jàpp yóbbu leen rëbës am na ñoo xam ne dañuy ñëw ci réew mi ñu bloqué leen fi ñu toog fi dootuñu mën a génn tukki mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne bu ñu moytuwul dëkk yooyu ñu nekk dinañu yàq foofu seen i mm-hmm. donc lii yëpp moo ne ci réew mi di daw ci réew mi wallaay te fi moo tax fi mu toll nii moo gën a mooy jàpp tout le monde est en source mm-hmm. képp ku bokk ci six catégories yii ma wax jàpp ne tu es en source ngay journaliste ngay activiste ngay homme politique nga bokk société civile nga nekk biti activiste bu nekk bitim réew wala dégg nga maam nga bokk ci kër diine yi jàppal ni tu es en sus tout le monde est en sus parce que ñëpp la ñuy surveiller ñëpp la ñuy bàyyi xel amul kenn koo xamante ni fi ñu toll nii ni également rëcc nga ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy kuy ndëgg sërëx yi nga xam ne lal nañ ko teg ko kuy wax lu dëppoowul ak lu état di def xamal ne yow war ngaa tiit mais war nga tiit mhm. c'est c'est que si xam nga li ci gën a neex mooy mhm. ci biir journalistes yi am na ci journalistes yoo xam ne fi ñu toll nii état amul bunt bu mu leen jaar hmm. na ci ñoo xam ne lu ñu la xam nga ñooñu mënoo leen jaar fenn. déedéet leen nar a jàpp pour diffusion de fausse nouvelle ñu ne fàng preuve bi te boobu boobaa moom état day sumee ko taatu neen. wala yenn autorité yu mag yi ci tax yëpp sumee ko taatu neen. donc ñooñu ñooñu laal leen du yomb. am na ci ñoo xamante ne ñoom waa nguur gi nee nañu ñii journalistes yi neexu ñëw parce que lu ñu la wax dañ koy teg ci ay firnde soit ci ay chiffres wala ay date wala ay statistique wala ay ñu indil la ab loi tegal la loo xam ni doo xam loo koy tontu. loo koy tontu dëgg la. mais lu gënoon yomb ci état mooy su nit génnee xibaar bu wérul mais nga génnee la bonne information. wala nga wut ñu xarañ ñu lay demal ci plateau di la communiquer ñoo xamante ni ils son assez outillés pour apporter la réplique et la riposte nécessaire. face à ñi nga xamante ne ay détracteurs lañ ci état loolu gën a yomb di. moo gën a yomb donc fi franchement nit ñëpp def attention. gën a taral surveillance yi ci njaboot gi. ci famille bi gën a xoolaat dëkkuwaay yi gën a bàyyi suñu xel ci àdduna gën a xippi suñuy bët gën vigilant. surtout waa Walfadjri yi ñu gën képp koo xam ne yaa ngi Walfadjri na nga vigilant parce que gars ñu xeebuñu kenn de képp koo xam ni leer na bu ñu leer bu ñu la toppee am ci yow xibaar xeebuñu xeebuñu non journaliste chroniqueur dama leen tege na le waaye muy technicien muy caméraman hmm. muy liveur hmm. muy preneur de son hmm. muy gardien muy ku bokk ci administration ku bokk service que personne n'est à l'abri képp koo xamante ne bu ñu la toppee mën a am xibaar ci keneen bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn ma la ñii toog jàkkaarloo ñu di def laa am na ku koo xam ne turu mi ngi ci liste bi su bëggee ma ma tur tudd tur yi waaw man kay xanaa boobu gën a gaaw liste baa ngi ci xol ci ci wàllu faj sama préoccupation waaw damay bañ tiital famille ak ñoom mais boo ma joxee ndigal ma liir tur man kay jox naa la ndigal boo ma nee gaz yi ma forcé tudd tur yëpp parce que pour dénoncer dénoncer rek la parce que li ñuy def nii li ngay def nii yàlla nga ci am parce que mën ngaa tax ki nga xam ne tey jii jógoon na pour def kooku lu ñaaw. Mhm. wala tey jii mu jógoon pour dugal ko ci kaso bi mu reculer. parce que mhm. kat Pape Ndiaye xam na. Mhm. est-ce que nga. donc euh, euh, c'est très normal xaw ma ñi ci des ci euh, biti. mais mu dee ci kër gi moom mm, am nga. permission te te mboolem kër ëttub taskor xibaar ñi ñu ci ciblé yëpp moom ñi ñu ci ciblé biir bi ñoo ëpp. loolu ci doy waar jox ma ci ay tur mais tête de liste. ci journaliste yi ñu ciblé tête de liste mooy Pape Alé Niang moom moom éliminé nañ ko ba pare li bëggoon ci moom amoon nañ ko mhm. te boo xoolee sax moom moomu xam nga avocat maître Moussa Sarr waxoon wax na ko wax na ko nee kii à xaw ma ñaata jours à l'avance waaw mhm. ñëwoon na toog ñëw gis euh, gisee ak moom waxtaan ak moom xamale ko même boo demee ci page Facebook Pape Alé Niang mhm. boo liiree foofu da gis ne moom bindoon na ko ba pare maanaam machine de déstabilisation bi tàmbali na na tijji nañ fi ñu toll nii mën na maanaam lâché nañu chien yëpp xaj yëpp sànni nañ leen. da mm. ñu ngi daw di wóowu nag di xool proie bu ñu jàpp pour ñëw dugal ko ci mbaalu gaay maanaam gaay tijji nañu mbaal yi tijji piège yi gaay def ci nii daanu ci ci biir rek la xaar. bu ñu demee ba fii réew mi toll fii nga xamante ni l'heure est grave. Mm-hmm. l'heure est grave. est-ce que jéem mi jàkkaarloog man sax bokk ci bokkul ci liste bi non damay laajte rek de. <laughs> benn waay parce que xelu kenn dalatul fi ñu ñëpp tiit ñëpp a jaaxle parce kenn ku ci nekk yaa ngi xalaat sa mbokk yi sax dañ lay woon non mbaa bokkoo ci ñi état ciblé mbaa bokk kii ci lii dafa doy waar c'est grave bu ñu demee bay dundu lii non doy na waar doy na waar doy na waar mais dérive yi dérive yi parce que lii nii euh, mën nañu yóbbu ci leneen euh, surtout que sénégalais yi dem ba xam mbir mu ni mel parce que information la ñu joxe information de taille nga joxe mm-hmm. yan dérive la mën a jur yan dérive la mën a jur parce que tam suñ ko dee xool rek mën naa jur ci xeli nit yi fippu parce que bu fekkente ne bu ñu dee wax état daanaka état am na doole la ñuy wax mais nag état tamit minorité de personnes la fii ci biir Sénégal parce que boo dee xool population ba ñu jiite ñoo leen ëpp fuuf de même que buñ dee xool ñi nga xam ne tey ji ñoom ñoo yor suñu ay kaaraange nga xam ne à chaque fois bu état bëggee dóor euh, ci kaw kenn ci ci ci ci euh, askan wi mhm. ko xëy na mën nañ ko jaarale foofu ak yeneen yu ni mel mhm. est-ce que aussi duñu ko mën a xoolaat bu ñu xamee ni askan wi aussi mën nañoo am yenn ci ay information te doole bu état am aussi mhm. euh, askan woowu am nañ doole bu ko raw ñoom ñu ko teg ci ci chaise bi ñu toog mais mais mais mais li li nga wax noonu loolu kenn mënu ko dindi loolu yëpp loolu yëpp am na ci loolu yëpp am na ci moo tax a gë gën a vigilant la ba ci koñ fi nga dëkk. Mm-hmm. ay dof yi ñëw di toog sa taatu parentère dàqal. Mm-hmm. yaa ngi may dégg. la yooyu yëpp am ci ñoo xam ne da leen di jaral ñu ñëw fa dugg leen di jaral ñu ñëw dugg fa ñëw lu dëkk luye. c'est grave pour mën euh, yi ci yow. yooyu yëpp am am na ci ñoo xamante ni dañuy lëkk non c'est extraordinaire. gars yi gis nga seen seen degré de de de capacité de nuisance kenn mënta xam nu mu mais nag li may dalalee xel yi mooy hmm. ñi ñuy topp ñii ñëpp du ñëpp la ñu bëgg jël tëj ci kaso bi am na ci ñoo xam ne état pour am information mën a anticiper d'accord am na ci ñoo xamante ni voilà quoi parce que xam nga am na ci ñoo ne déjà dañ leen catégoriser ba pare am na ci ñoo xam ne dañ leen ne ay gis nga réew bi coro hmm. xam nga lu doy waar Sénégal hmm. ku fi wax dëgg ku fi wax dëgg ñu ne pro Sonko nga ku fi wax dëgg ñu ne militant Pastef nga mais kon kon kon waa Pastef nañ sant yàlla am na am nañ lu rek kon Sénégal gi yëpp mais Sénégal gi yëpp kon ay ay lañ. wallaay ku wax dëgg ñu ne pro Sonko ga ku wax dëgg ñu ne Pastef Sénégal gi yëpp ay militant Pastef lañ. Mhm. Sénégal gi yëpp kon ay pro lañ. Mhm. mais lii dafa doy waar. waaw doy na waar kenn amatul jàmm kenn amatul liberté ci kër gi. Mhm. ñu ngi lay wër guddeeg bëccëg di xo di xool fu ñu la mën a jaaree. soit ay nit di la topp pour xam fan ngay dugg wala ñu xool ñan la ñuy ngemb. Mhm. wala ñuy am na ci ñoo xamante moo tax man foofu foofu foofu laay ñaaxaatee suñu soxna yi parce que am na rôle yoo xamante ne waruñ ko accepter jouer. surtout surtout. am na ci ñoo xamante ne ay mbër lañ leen ngembal ay ponkalim jeek yu ne faaj yuy wiij si di dox di wiij seen taat yi seen wen yi di lang xeesal ba weex tàll njool ca kaw jër soni coquette. ne la songal songal ne la songal. am na ci ñoo xamante ne am na fi waaw bu dee nag yow yàlla da nattu nag moom nga xaw a am faiblesse ci côté boobu ah war ngaa moytu de dëgg la piège yi ma ne la gars yi togg nañ ko ba pare ba activer ko gars yi daanu ci piège bi la am na ci ñoo xam ne ci jigéen lañ jaare ngemb nañu jigéen yi ñoom ñu leen di utiliser ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy jigéen ñi jaru ko jaru ko am na ci ñoo xamante ni da gis jigéen bu yor dawal oto bu tooy xëpp riche ne la yow rek yaa ma indi Sénégal dëkk sàngam laa jóge mais am na ci sama benn naataango journaliste bu ma doon waxtaan wax na ma lu mel noonu. ndaxte dañ ko yónnee. am na ko xoolal wax ma somme neex ma viré la ko sa compte bancaire. am koo xamante ni bitim réew la ne fii Sénégal la ne mais mu ne ko sama compte laa la bëgg a jox accès pour saa yu la neexee nga dem di retirer loolu neexul. waaw ceeb la ko loolu est-ce que ko defaloon alsaan mi dina rëcc. du rëcc. ah xaalis dafa neex di ko bëgg di. mais bul xam ban pièce moo lalu ci ginnaaw bul xam ban pièce moo lalu ci ginnaaw bul xam ban pièce moo lalu ci ginnaaw man jamono yële passé jamono yële passé mm-hmm. ànd naag sama jabar mm-hmm. comme ni ma ko parfois man jékki-jékki weekend génn bu ma neexee rek jékki-jékki weekend dem dem dem dem hôtel ak sama jabar wala dem appartement meublé wallaay wala nit gis ma fa ak sama jabar photo ma dem envoyé ko keneen kooku envoyé euh, keneen kooku ma ko envoyé kooku ma alerté dem envoyé ko ay ni xoolal diw diw de laa gis ci ak jigéen benn ak kiiwu jàmbur ay bu doon sa jabar kon kon heure bi kenn waxatu ko kon heure bi kenn waxatu ko léegi gi xoolal xoolal exemple boobu rek sax rek ñoom dañ li ma bëgg wax foofu mooy xam nga Sénégal li tax maanuwuñu dañ lay gis ak jigéen duñu xam loo séq kii duñu xam ndax sa sœur la wallaahi duñu xam ndax sa collègue la mhm. duñu xam loo séq kii mais ñoom pour ñoom buñ la gisee jigéen rek yaa ngi ci nak sudul noonu c'est grave kenn ñemeetul dem seeti jigéen kenn ñemeetul jigéen seet si la mhm. parce que yaa ngi xalaat ni yu kenn mën na la gis dem dëkkal la foo dëkkul wala da nga maam état yaa ngi xalaat ni sax est-ce que état ngem ko sax mu ñëw di di di la jege si wala tibbal la kotuwaay wala di la di la kii moo tax fi ñu nii jamono bi toj toj boo xam ni hmm. kenn wóolootul kenn kenn wóolootul kenn hmm. voilà donc euh, Pape Alé Niang lii kenn kenn kenn mënu koo wax kenn mënu koo wax mais bu dee xool Pape Alé Niang ñu jeexalee foofu laataa ñuy nuyu ak tàggatoo ak télé euh, auditeurs yi internautes yi donc dañuy ñëw ci Pape Alé ak li mhm. ko mën a fekk ci lii mhm. li ñu ko tëjee nii bu fekkente ne ay baat jóguñu bu fekkente ne taxawu amut parce que ñu ngi xaar taxaw nag ci kon euh, euh, ni ko waxee euh, ci milieu bi ñu nekk tey jii mu di tasum xibaar ñu ngi ci xaar ay taxaw yu dëgër pour état mën a deltu ginnaaw wala sax li ñu koy toppee ñu mën a deltu ginnaaw ci loolu mais lan moo ko ci mën a fekk waaw bu fekkente ne lu ne mën na ko cee fekk sari xam nga li xam nga li doy waar jii coro fi ñu toll ne état lu mu la bëgg a teg. Mhm. justice daf ko ciy jàppale pour mu mën a nekk. Mhm. loolu moo doy war ci mbir mi. Mhm. lu la état bëgg a teg. justice daf ko ciy jàppale pour que loolu mën a nekk. Karim Wade écarté wuñ ko bokkul ci élection. Khalifa Sall defuñ ko noonu. te pourtant justice waxu ko. justice ba mu leen attee neewul ni kenn ñii dañoo war perte seen droit civique mais pourtant justice de pourtant euh, euh, xañ nañ leen ñu bokk ci ay élection mook dossier euh, yi nekk instruction ñoo yem àtte soit dañ lay may non-lieu setal la non total wala partiel wala ñu yóbbu la àtte la hmm. bu ñu la ci yóbboo ñu àtte la nag bon bu ñu sukkandikoo ci daan yi nga xamante euh, xam ne ak côté na ay daan dem na ba ñaari at am na ci yoo xam dem na ba juróomi at am na ci yoo xamante dem na ba fukki at hmm. donc loolu daal mooy li nga xamante fukki at daal mooy li nga xamante mënu ko weesu hmm. mooy dix ans yoo xamante ni mën na ànd xam xam nga li li li doy waar ci mbir yi mooy dañoo dem fekkee ay tuuma yoo xam ni xam nga ñan lañ koy jiiñ mm. ñii def coup d'état moo jaaxal yooyu lañ jël teg ko ci kaw Pape Alé Niang nañu waxante dëgg Pape Alé dafa tal coup d'état talu ko Pape Alé Niang dafa tal def affaire terrorisme dañoo jël dil yi nga xam ne def ko tu coup d'état lañ ko war jiiñ jël teg ko ci kawam c'est grave a gën a. jëli ay délits yi nga xamante justice bu la ci déclaré coupable mën na la defal lu ñu tuddee interdiction d' exercer la profession xam nga ci am na ci délits yoo xam ne boo ko defee. loi mën na ne yow fii ak 10 ans doo exercer métier journaliste. wala ñu ne la sax yow métier journaliste pare nga ci à vie. Mm-hmm. ay interdiction de séjour. donc mbir yu tar yu garaaw yooyu nga xam ne ko war def mooy les grands criminels reykatu nit yi defkat yi ak dégg maam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñi defkatu coup d'état yi aggravé ko tawi mbir mi yokk ko yóbbu ko foo xamante ne fu mu yeggul moo tax man li may dalalee famille Pape Alé Niang mooy na seen xel dal. Mhm. Pape Alé Niang deful dara lu yoon tere. dafa def métier correctement dañ koo bëgg jaay doole moo tax ñu koy bund xatal def ko ci ñu koy tegee te man nag may wax ni bu dee dañ ci jublu noppiloo Pape Alé Niang wala bu génnee mu bàyyi investigation bi mu doon def. Mhm. wala dañ ci jublu journaliste yi ne ci biti ñu noppiloo leen nax nañu seen bopp. man de pare live bi dem fanaane Rebeuss dem sama kër laa yemale. dañoo gën a donc li ñu def nii perte de temps la rek dañuy perte seen temps rek écoute téléphonique oo jàppale tëj ci si kase bi yoo def loola ay affaire mbëkk la accident mbëkk sa oto wala def loola ay kii yoo dañuy perte seen temps di sonal seen bopp rek yoon bii ñu jël hmm. dañoo ñëw fekk ñu fi ñu nekk ay journaliste di ko def hmm. dinañu dem bàyyi ñu fi ñu continuer di def suñu liggéey parce que lii la ñu choisir ñun lay neex ñu bàyyi ko fi génn ne dañuy dem defi leneen hmm. mais tant que ñu koy bëgg du gi ñooñu ko mën a teree def